kon mu jàll ci li nga xam ne jaayis la ci wàllu yàlla kenn du ko waral ci moom kenn du ko jombal ci moom dañuy wax ne rek lépp ngi takku ci coobareem ak kàttanam lu ko ca soob mu def lu ko soobul mu bàyyi faslun li ab dog la fil jaayisi ci aji dagan ja fi xaqihi ci àqam moom yàlla taala kawe na amal la fii ndaal la nga xam ne jaasa dagan na xaddaaka yal na la jéggi a shakku sikki sàkka fa fi'lu kulli mumkinin mooy defuk mépp mbindeef dañoo jublu mooy defuk lépp lu mën a am wattar ko ak bàyyi ga ka xalqihi niki ak bindam alxalqa mbindeef yi maxal afxaali ànd ak jëf ya wa baatihi ak ak yónneem a rusla yonante bila ishkaal ci lu dul lënt kadaaka naka noonu jaaluhu defam nga ak tawaaba yool ba wal xiqaaba ak mbugal ga li muminin ñeel aji gëm wa kaafirin ak aji weddi yamal xisaabi ci bisub xisaab ba li ñuy wax jaayis aji dagan maanaam lu mën a am mën a ñàkk ci wàllu yàlla mooy da ngay njëkk a saxal ne suñu boroom daal kenn du waral ci moom dara dara ne nangam da ko war a def kenn du wax itam ne nangam sañu ko dañuy wax ne lépp loo xam ne lu mën a am la dañ koy bàyyi ci coobareem bu coobareem ajoo ci def ga mu def ko ci coobareem ak kàttanam bu coobareem ajoo ci bàyyi ga bañ koo def mu bàyyi ko bañ koo def waaye kenn du waral ci moom dara dara kenn du wax ne itam nangam sañu ko mel ne sàkk gi mu sàkk mbindeef yi coobareem dong la bindee mbindeef mooy lépp lu mën a am rek am na ci mën a am mu amal leen am na ci mën a am mu soob ko mooy leen a amal ba tey mbindeef mu ne moo la sàkk moo sàkk say jëf wallaahu xalaxakum wa ma taamaluun lépp nag ci coobareem rek la yónni gi mu yónni yonante yi ñuy xamle yoon moom bëgg ko ci aw kenn du wax ne daa war ci moom coobareem rek la ba tey fay ga muy fay tuyaaba ka gëmoon tey topp ni ki yóbbu ko àjjana ak dugal ga muy dugal ka weddi woon di mooy ni ki dugal ko sawara yooyu yëpp kat dara waru ko ca bu ko neexoon ka gëm tey topp mu yóbbu ko sawara ka weddi tey mooy mu yóbbu ko àjjana waaye moo mis lu zi kem yii la ijaabu imaanin waralu gëm kasaaniki ni taxriimu kufraanin araamaluk weddi wa takliifun akuk togge jëf usan na nga jàpp waral gi waral ci mukallaf yi ñu gëm ko te di ko topp ak araamal gi araamal ci mukallaf mu weddi ko mbaa mu koy moy loolu lépp coobareem rekk la bu ko neexoon yamale gëm ak weddi du waral lee du araamal lee su ko sooboon tam du teg mu kàllaf lenn lu mu koy togg naa ko defal lii bàyyil lii warul da na nga delloo rëya man xalaatu ka nga xam ne aw jaba waral na xale ci yàlla salaaxan ak yiw aw aslaha mbaa la gën a yiw pour sax kon def na la wërsëgale adaban teggiin bul bokk ci ñi wax naa yàlla moom daa baax ba lu baax rek lay def mbaa ñu naa moom kay la gën a baax sax lay def mel ne kon lu baax aku ay dafay nekk yàlla mooy def nag la baax keneen mooy def safaan ba muy aywa mel ne kon du rek yàlla moo fi nekk def ak dindi am na keneen kuy soppandiku ku bokkut ak moom bul ànd ci boobu xalaat jàppal ne lépp lépp rek yàlla moo moom lépp te la mu def rek mooy la rafet mooy fëkkulumaa lépp loo xam ne xadd faxala def na ko al jarilu aji màgg ji pasaaka loolee mutlaxan lu mu mën di doon xëwa moom aljamilu moo di aji rafet ja li anna kulla ni'matin ngir naka gépp xéewal atat goog dikk na min hu tukkee ci moom yàlla xalaa ibaadihi ci jaamam ñi fa tafdilun ak gënal la sabata goog sax na wa kullu niqmatin te gépp mbugal arat goog gaar na xabdan ab jaam abadan faawu fa innaha naka moom xadlu ilahina maanduk sunu buur bee assamadi nga di ko njublu ci aajo bu njëkk di wax naa nangam mooy la baax te yàlla moom rek la def lu bokkut ak moom defu ko déedéet da ngay wax ne rek lépp lu yàlla def rek loolaay la rafet te mooy yàlla am la muy def ci ay jaamam nag yaar la benn mu def xéewal jëm ci jaam ñi mbaa mu indi tiisa mbugal teg ci seen kaw ñu jàpp ne xéewal gu mu indi rek jox ko ab jaamam mbaaxam ak ngëneelam la waaye du lu ko war mbaa dara yépp tiis ak mbugal goo xam ne wàcc na ko ci ay jaamam it ak maandoom la kon yàlla dana jëflanteeg jaam ñi ci ngëneelam ak ci maandoom lu jaam ñi am ci xéewal ngëneelama lu dal jaam ñi ci xeetu mbugal ak tiis mu lu bokkut ak xéewal rek ak maandooma moo tax ñuy ñaan yal na yàlla sunu borom di jëflanteeg ñun ci ngëneelam te bañ a jëflanteeg ñun ci maandoom wa in yasuka ndeem dana la naqari maa la nga xam ne xabaa àtte na ko allahu yàlla assamadu kadi ko njubli ci aajo fala fala tasaalu kon doo dañ fi waraamin ci aw naqar wa nakarin ako tiis mu ne nag ndegam gëm nga ne lu am lu ne yàllaa ko dogaloon ne dana am bu àggee ci waxtu wa bu sottale ko nam ko dogale woon kon nag lu dul yàlla rek jëfi yàlla ndegam lépp yàlla lu yàlla def rek daa war a neex ci yow ba mu des nag weddeeg mooy weddeeg mooy moom ndegam moom daa wax ne bëggul weddi bëggul mooy yooyu yaar moom kon na lay naqari waaye lu dëkkuta yooyu yaar na nga xam ne moom moo ko def te mu neex la boole ci bëggu la naqari ndax bu war ba kon gërëmal jumaa ci la nga xam ne xat darahoo dogal na ko al jalilu aji màgg ji li koy turiixa ngir nga nofal an nafsa bakkan ba yaa nabilu yow aji xellu ji ndax fokk lu ma lépp loo xam ne araadahoo namm na ko fa waaqewoon aji tàbbi la idi ngir laalahoo deddi ko ñeel mu daafihun jenn aji jiñoonte munaasiun ji aji xëccoonte razaqanaa yal nanu wërsëgale ar rida gërëm ga jumaa ja la nga xam ne qadaahu àtte na ko wa saaya ak jëf ga fi jamihima ci mboolem la nga xam ne yardaahu dana ko gërëm dangay jéem nee na lépp lu yàlla dogal rek sa xol sedd ca boo ko defee da nga noppalu ci biir ak bitti waaye boo ko deful doo denc ci naqar ak tiis ndax yàlla lu mu nar lu ne faw mu def ko ndax amut kenn ku mën a taxaw ne ko doo ko def amul kuy jéem a xëccoog moom di jéem a bésanteeg moom naa ko doo def lii mbaa doo def laa mu ñaan nag yàlla boole nu wërsëgale lépp lu mu dogal rek sunu xol sedd ca te mu may na it ñu sax di sonn ci lépp loo xam ne lu mu gërëm la fas lu li ab dog la fil barahiini ci layya ay lay maanaam melo yamu jotoon a wax ci sunu boroom da caa bëgg indi ay lay maanaam lu ko dëgëral loo xam ne da nga mën a jàpp ne ni ñu ko waxee rekk noonu la amee amul lu koy toppale amal wu joodu ndaal amag yàlla fa burhaanuhu layam wa xuduusul aalami mooy sosug mbindéef fi xawli kulli xaalimin ci wax yi jépp aji xam li ànd na ngir nekk moom mbindéef law lam yekkun doonte nekkutoon xalxan di mbindeef xulima moom xameef na ko ba li fi nekk kaana nekk na muhdisan di aji sos li nafsihi ñeel boppam lasima kon war rujuuhu waahidin lëngu kenn lëng mooy wat ëpp doole minal amrayni ci yaari mbir ya al mutasaawiyayni yi aji yemoonte doona may mu ci lu fenn mu lëng nag maanaam mu wat nag ëpp doole li saahibin ñeel am moroom lëxoo ñeel ko bi xëyri sababam ci lu dul benn sabab wax wa te moom loolu mu xaalu lum jombal la xinda kulli aridin fa jëpp aji xellu melaw ni ko ne wax ci suñu borom mooy da nga ne woon lu am am la du rek lu ñu wax te amut mu ne nag liy dëgëral ne yàlla am na mooy mooy lépp lu bokkute yàlla am nga mu am day wane rek amug yàlla ndax mbindeef te mooy lu bokkute yàlla li xel mën a jàpp mooy lu mën a am la mën a ñàkk maanaam jaayis la lu bokkute yàlla ak amam ak ñàkkam ñoo yemoo dong dong dong ndax bul gis rek mbindeef yi am tax nga ne mbindeef ak amam mënta woon a ñàkk ndax bu fàtte ne waxal nañ la yoo xam ne lu ci nekk xel nangu woon na mu am te amut ndax mumkin mbindeef ba nga ko waxee jubluwoon ci li am nga jàkkaarloo moom mumkin rek mooy aji mën a am ci xel rek lépp lu mën a am rek mumkin la ndegam nag mbindeef ak amam ak ñàkkam ñoo yemoo dong dong dong li xel nangu mooy coobare yàlla ak kàttanam moo ñëw nag amal yenn mbindeef yi ñàkkal yenn mbindeef yi waaye bu fekkee da nga ne mbindeef yi am kat ñoo sos seen bopp kon da nga wax loo xam ne xel du ko nangu ndax kon day mel ni da nga ne yaara ngi ni yoo xam ne ñoo yema woon képp gannaaw ba kenn ka wëlbatiku ëpp doole moroom ma ci amul dara loo xam ne moo ca wàll si ëppal ko doole ba mu ëpp doole moroom ma ci misaal boo seetoon ñaari dërëm yoo xam ne ñoo yemoo képp képp nga fekk balaas boo xam ne balaas bu baax la amul benn sikk nga jël benn dërëm teg ci boolu balaas bee jël beneen dërëm teg ca boolu balaas bee ñaari booli balaas yi dañoo war a yemoo képp màndaxonte waaye benn ba mënta jékki-jékki rek wet maanaam daanu ëpp doole moroom ma ci lu dul geneen kàttan moo ca wàll si boo nee nag beneen sabab mel ne beneen doole moo ñëw ëppal doole benn dërëm bi nekk ci boolu balaas bee ba mu ëpp doole dërëm ba nekk ca boolu balaas ba ca des xel dal di koy gaaw a nangu waaye nag yaar ya yemoon képp képp képp gannaaw ba kenn ka jékki-jékki wëlbatiku ëpp doole moroom ma ci lu dul benn benn sabab ci lu dul benn benn benn sabab loolu la xel nanguwut ci loolu nag kon amuk mbindeef ak ñàkkuk mbindeef ñoo yemoo képp képp képp bu mbindeef na wëlbatikoo sos boppam day mel ne kon yaar ya yemoonte woon képp képp kenn ka wëlbatiku na ëpp doole moroom ma ci lu dul beneen sabab boo xam ne moo ca wàll si ëppal ko doole kon nag li xel nangu mooy nga jàpp ne amul mbindeef ak ñàkkul mbindeef ñoo yemoon képp yàlla nag moo ñëw ci coobareem amal ca la ko soob ñàkkal ca maanaam bañ a amal la ko soob mel ne da nga ko laaj ne ko ndegam nee nga mbindeef moom dafa sosu ana tekkal bu ñuy xamee ne mbindeef dafa sosu dal yi ñu naa sunu tegtal xalaa xudoo si laalami ci sosu mbindeef lisoomuhoo mooy ak taqoom ak al xaraba xarab bi idnil aalimi ci digalul yàlla muy aji xam mislu firaaxin kem ak teqalikoo wajji timaahin akuk dajaloo wa sukkoonin akuk dal id ngir laasimul xaadisi aji taqoo aji sosu yakunu dana nekk moom it xaadisan bi aji sosu li ñu xamal ne mbindeef dafa sosu mooy taqoo gi mu taqoo xarab ba xarab ba moom nga waxoon ne mbir la moo xam ne mënta taxaw moom doon ak boppam faaw day fekk jëmm rek mu taq ca mel ne yëngutu ak dal wala dajaloo ak tàqalikoo ak lu bare bare dangay gis nag bindeef muy taqoo yu demee noonu li ki nit ñi gis nga ne ñu wopp ak wér di nelaw ak yow di yëngatoo ko dal di xiif ak mar di bànneexoo ko naqarlu yooyu yëpp xeeti xarab lu yoo xam ne jëmm ji koy taqoo rek xamal ne daa sosu ndax xarab ba moomee mu taqool ak sosoo moom nattabli woon ko kon nag lépp lu taqoo moom mën laa tàggoo moom it da ngaa sosu rek moo tax mu teg ci dalilu naa sunu tegtal xalaa xuddoo si xarab bi naa ci sosug sunu arab gi suhuu bi naa moo di sunu teewe daga wuran ak soppiku tabay yana gul bir na ñun xadamuñ bàyyi ko ci ñàkk ilaawu joobin moom ci ak am xadd xulu na gopp xameef na ko wax ak si yii akum safaanam ay limu ci namm ñun wu joobin bàyyi ko ci am li xadamin jëm ci ñàkk arab bi moom nee na sosu gim sosu lu mu gàttaar lool la ndax bul dajaloo ñuy toog wóor na mu ne suñ dajaloo gi ak ñàkk dajaloo moo ko jiite woon kon suñ dajaloo gi am nag tàmbaliwaay boolu teqalikoo itam gannaaw bi mu dajee nii ba noppi itam da nga xam ne suñ teqalikoo gi xarab la boo xam ne gannaaw boobu ñàkkee ba noppi ndax ak tase moo ko jiite woon la door a am ba tey lu yëngutu dana noo wër ne yëngutu boobu ñàkkul fu mu dalee lu ne tekk itam dal dana noo wër ne tekkam jooju ñàkkul fu mu dalee ci misaal su ma xiifee dana ma wóor ne xiif gi ma xiif ñàkkul fu mu dalee su ma reggee dana ma wóor ne regg gi ma regg ñàkkul fu mu dalee su ma nelawee dana ma wóor ne nelaw yi ñàkkul fu mu dalee kon xarabu moom am gi mu am fu mu dale sosu lu mu wóor a wóor la ndegam nag mbindeef mënta tàggoog yooyu moo tax ñu xam ne kon mbindeef moom dafa sosu ni xarabu moomu le sosoo moo tax mu ne li ñuy tegtaloo ci ne xarab dafa sosu mooy dañoo jàkkaarloog xarab muy am aka ñàkk di ñàkk aka am bañ am ba yàgg mooy bëtiku am wala mu am ba yàgg mooy bëtiku ñàkk lakinnahu waaye moom alxarab yakunu dana nekk waadixan di aji leer li kulli taalibin ñeel jëkk aji sàkku di sa bax bi sabaxatil mataali bi juróom-ñaari cekkuteef alxarab ci bopp nee na buñ ko bëggee leeral ba ki jàng mën koo xam bu baax kon lañ koy tombal juróom-ñaari tomb wa af bit saxalal alxaraba xaraba wa luzumahu akuk taqoom ak almaxal la jëmm wa axil jombalal xaadisan aji sosu bi duuni awalin ci lul aji jëkk wa abbatin te nga yàq mbaa te nga neenal intiqaala xarabin toxub xarab yaa xamiinan yow ab xarit tusab kon def na la yool te daalika naka noonee inhidaamun ak ñàkk li xadiimi ñeel aji jiitu xadiim mooy ku tàmbalewul fenn bi mu ne xarab dañ koy tomb juróom-ñaar tomb ndax mu leer ba ci jëkk mooy nga wax ne bu ne rekk jëmm ji ne léngu moo am gannaaw jëmm ji ne léngu ji am na lu tudd xarab loo xam ne mooy ñëw taqoog moom nga xam ne kon jëmmi xarab ci boppam moom nga njëkk a saxal ne lu am am la muy benn ñaareel ba mooy foo ko fekk day taq ci jëmm waaye mënta doru ñetteel ba mooy xarab yi ndegam dañoo bari te itam wóor nañu ne dañoo sosu kon ñàkkuñu aji jëkk bépp lu sosu rek faaw mu am aji jëkk ñeenteel bi mooy xarab ba ci boppam mënta toxu mënta toxoo ci jëmm ji jëm ci jeneen mel ne yëngatu bi nekk ci yow bu ne jëm yëngatu googu mooy toxoo ci yow dem ci keneen bu ne mar wu nekk ci yow ba xiif bi nekk ci yow jëm jooju mooy toxu dem ci keneen loolu ñeent la juróomeel mooy xarab bi foo ko fekk lu sos rek moo koy amee lu am fu mu dale rek moo koy amee waaye xadiim muy yàlla ak ay meloom ak kituram yooyu du am xarab du wastaxil na nga jombal alkumoona nëbbu ga wa duhura ak feeñ ga li jam xeb di bay ni ngir doole yaari safaan ya tekkun kon nga nekk man soor ndikuñu dimbali juróom benneel mooy nga wax ne xarab du foo ko fekk benn day nëbbu rek mbaa mu feeñ waaye mënta doole nëbboog feeñ ndax nëbboog feeñ dañuy yaari safaan yoo xam ne mënuñoo bokk tase qiwaamuhu taxawam nga ay bon ba tey bi nafsi ak boppam waxee la jombaleef na ko fii nax ji kulli mustaqimin ci yoonu bépp aji jub laa yow miiru kon bu jeng bi ko juróom ñaareel mooy nga ne xarab foo ko fekk du doylu ci boppam paw rek mu amuk aajewoo ni jëm ju ne léegi doone mbindéef tey aajowoo jëm ci ka ko sos xarab bi it gannaaw ba mu aajowoo jëm ci jëm jum taq da cee boole du mën a doylu ci boppam faaw mu aajowoo jëm ci ka ko sos te boole ko jëmm joojee gannaaw boo ne xarab bi faaw day taq ci jëmm nga cey dolli ne moom nag mënta doylu ci boppam mukk-mukk faaw rek mu aajowoo waaye ak doylu moom du ko mën a def tumma wujjoobu xidamir rahmaani topp waruk jiituk aji yërëme ji burhaanuhu layam wa xinda dawil adhaani fa waroom xel ya mooy law lam yakun doonte nekkutoon jàll màgg na xadiman di aji jiitu laftaqara kon mu aajowoo li muhdisin jëm ci aji sos li kaw ni yi ngir nekkam xalxan di mbindéef zaha moom feeñ na wa yalzamu te kon dana war ak dawru wëndeelu ga awet tasal sumu wala càllalawu ba te kilaahuma képp ci ñoom ñaar wuquuhuhu ak tàbbeem maanaam ak amam laa yax sulu du mën a am mooy du mën a nekk day jàll layal la nga waxam ne yàlla dalewul fenn mu ne liy dëgëral ne yàlla dalewul fenn mooy su fekkoon ne yàlla dafa dale fenn kon mbindeef la du ñàkk ku ko sos te it boo waxee ba ne am na ku sos yàlla war ngaa wax kon kooke itam ku ko sos kooke itam bu mel foofu waxal ku ko sos mu mel ne kon boo nee mbindeef yi day yàlla leen sos waaye yàlla ci boppam am na fu mu dale daa am ku ko sos kon xam nga ne nga yàlla am na li mu sàkk amal ko waaye moom it daa fekk ñu sàkk ko amal ko nga xam ne kon yàlla faaxil la aji def la mafaxool la ku ñu def la loolu mooy tudd ak dayru loolu la nga topp ko lu wéy bañ am fu mu yem nga xam ne boo ne yàlla moo nu sos waaye am na ku ko sos faaw nga jàll ne kookee ko sos kat moom it am na ku ko sos jàll ne kooko it kat am na ku ko sos bul taxawal jàllal ne kooko it am na ku ko sos muy wéy di wéy di wéy foo xam ne amul yemukaay loolu nag moom la xel nangu wut te xel nangu daal mooy am na kenn koo xam ne moo sàkk lépp lépp lépp te moom kenn kenn sàkku ko wa dawru ak dawru kawnu waahidin moo di nekku kenn mafahoolan di ku ñu def wa faaxilan tey aji def ay bon ba tey man nga ne mafahoolan di ku ñu sos wa faaxilan tey aji sos ay bon ba tey faa i na nga wattu almanqoola lañu toxal amat tasal sulu ndaal càllalawu ga xalal ijjimaa yi ci dajak fóoro yi tuxu moom ak tawaaturu moo di toftaloo ga bilam xitaaxin fi ludul ak dog ak dawru nee na mooy gën a jëmm ji moo sos kii waaye moom itam kii moo ko sos li ci dama ne yàlla moo sos mbindéef yi ci nattale ba noppi nag teg ca ne yàlla it kat am na ko ko sos kon yàlla aji sos la waaye ba tey kunu sos la loolu mooy ab dawru tasal suuf nag mooy nga topp loolu muy wéy di wéy di wéy bañu am fu mu yem ndax da nga wax nga ba ne yàlla am na ko ko sos bu taxaw foofu jàllaatal ne kooko it am na ko ko sos bu taxaw foofu jàllaatal ne kooko it am na ko ko sos mu wéy di wéy loolu daal xel nanguwu ko li xel nangu daal mooy am na kenn koo xam ne moo amal lépp lépp lépp te moom nag kenn kenn kenn ama lu ko tuma baqaa uxuwa topp desam nga moom yàlla taxalaa kawe na sarmadan faaw burhaanuhu layam wa inda sanoosi fa asanoosi al muqtadaa kadi ku ñu roy mooy law jaaza doonte daganoon na añ yalxaqahoo mu yéeg ko mu jot ko ak dëxëra ci jenn jamono alxadamu ak ñàkk kama xaraanaa niki mënu gaare lantafaa kon dàqu an wayus ko alxidamu jiitu ga li kaw ni ngir nekkam min sàmm ci foofee jaa isal wujjóodi di aji dagan ak am wa jaa isul wujjóodi te aji dagan ak am daal xalqun mbindéef la laa tax yidu déet ngay jeng daaw yi max naam laa tax xidd bul jeng kayfa naka loolu di mën a amee waqat bi sabaqa te bi mu jiitu woon na aanifan léegi wujjóobu xiddamu bil wujjóodi warut jiitu boroom am nga xaafiri dunóobi ki aji jéggale bakkaar ya maa nga ne ba tey wujjoobu xiddami jul wujjoodi waru jiitu borom mbindee fii xaafiri dunóo bi ki aji jéggale bakkaar ya day layal la ñu waxoon ne yàlla bu jeex mukk-mukk dafiy des ba faawu faawu faawu mu ne day ñu ne bu fekkoon ne da nga ne yàlla dana dem ba yàgg mu jeex kon li muy tekki mooy la nga waxoon ne yàlla dalewul fenn moo deñ ndax yàlla ndegam dana jeex rek kon dafa aman fu mu dale ndax lu am fu mu dale moom dana am fu mu yem waaye ndegam moom nag dalewutoon fenn kon moom du yem fenn kon nag xam nga layal nga léegi ne yàlla dalewul fenn fenn te boo nee dana dem ba jeex kon la nga waxam ne dalewul fenn loolaa deñ kon aman na fu mu dale kon loolu moom yow mën naa layal dëgëral nga léegi ne yàlla dalewul fenn te boo ne dana yem fenn rek li muy tekki mooy am na fu mu dale woon tumma wujjoobu kaw ni yi topp warug nekkam nga mu xaalifan di aji wuuteeg li xalqi yi ñeel mbindeefam yi burhaanuhu layam wa ku nekkal xaarifan di aji xam ko te mooy rek law annahoo doonte naka moom maatala yemoonte naag chey an dara abadan faw min ha ci mbindeef yi lakaana kon mu nekk xaadisan di aji sosu mitlan te di am kem badaa moom feeñ na wa daate lii mu xaalun lu ñu jombal la li maa ngir li nga xam ne mabaa wéyoon na min wujjoo bi xidami yi ci warug jiitoom ga maxal baqaay ànd ak des ga yaa labiban yow aji xellu la nga waxoon nag yàlla day moo sàkk mbindeef waaye ñëwul ceeg lenn lenn rawante na mu ci yemoog lenn lenn loolu nee na yow mën naa layal ndax da ngay wax ne su fekkoon ne yàlla dafa yem ak mbindeef kon da ngay daal di wax ne mbindeef la te kon am na fu mu dale am na fu mu yem di mbindeef yi rek te kat bul fàtte ne léegi léegi nga waxoon ne yàlla dalewul fenn te du yem fenn te leen lu ne ci ñoom ñaar joxe nga ci aw lay wu dëgër a dëgër kon nag li wër rek mooy yàlla moo sàkk ñëpp mbindeef waaye nag yëlewut ak menn mbindeef rawante na muy yemoog menn mbindeef tumma qiyaamullaahi topp taxawug yàlla mbaa nga ne doylug yàlla jàlla